kon tabaarakallaahu ni ma la ko waxee noonu Moussa Ngok léegi nag yonentu yàlla Moussa tànn na nitam ya lu mat juróom-ñaar fukki nit bañ demee ñiy dégg Moussa ma ngay tontu yàlla yàlla di ko waxee ca niir wa ñu ne ko fekk li ngay dégg dégguñ ko ak li ngay gis gisuñ ko duñ la mën a gëmal wax naa la ko yàlla xaaj ci ñoom ñu dee Moussa ne ko yow yàlla atuhlikuna bi ma faala sufahaau minna in hiya illa fitnatuka yow yàlla bu ma jàppee sama nit ñu dese nii li ñuy def mënoon ngaa leen rey avant lii kon nag ci la ñaanaat yàlla dekkil leen tabaarakallaahu mu door a ñibbeeg ñoom nag ba seen fanu seen seen waxtu dee dee ñu door a jot dañoo wax lu rëy ku wax lu rëy yàlla def yàlla teg la lu rëy gis yàlla lu rëy la arina laa jëhrata ànd yaa ngi tilim sa dara maanaam laabu du xol du xel du jikko dara baaxul ci yow nga ne damaa bëgg a gis yàlla su boobaa loolu day nekk lu jafe borom ruuxul bayaan wax na ne yàlla juróom-ñaari yëf a tax mënuñ koo gis ci àdduna bi ci njëkk maanaam cofeel ak dégg muy cofeel ak kumpa moo ëpp doole ca foo cofeel ak jàkkaarloo maanaam booy dégg nit ki wala ngay dégg dara ba sopp ko toujours sa cofeel day gën di continuer di gën di rëy ndax loo ko teg rek comme gisa boo ko loo ko teg day wax ne man daa yaakaar naa lii ma teg ko sa ëpp na ko waaye nag li nga sopp lu mu rëy rëy ba nga bëgg ko bis boo demee ba jàkkaarloog moom rek boo amul sens sa cofeel wàññeeku ci moom looy gis rek bu yàggee maanaam dootoo ko soppati mu ne na su fekkoon ne yàlla dañ ko gis fi ci àdduna toujours di gis yàlla loolu day waral suñu cofeel wàññeeku ci yàlla waaye nag maanaam fàddu gi nga xam ne moom lañ ko fàddu moo waral suñu cofeel ak suñu ngëm day gën a rëy ci moom ndax luñ ko teg rek dañu jàpp ne ëpp na ko moo taxoon tey boo toogoon benn waaye ne la waa man de yaa ngi ma doon sa problème mu bi waaye nag jëlal naa am xar yeneen naa la kuy rek yem ci da nga ko sant gërëm ko parce que gisa boo kuy ma yaa ngi ne ponk la kuy la waaye bis boo demee ba nga xam ne ndég mu ñëw nekk asi day wax ne man kat kuy laa tegoon ponkal waaye kat ni ma ko tegee woon ak li ma yónnee du benn sa cofeel day wàññeeku kon loo gëm sopp ko te gisoo ko moo ëpp doole loo gëm sopp ko te gis ko ndax loo ko gën a gisee day gën di wàññeeku muy benn ñaareel bi àdduna kër ak sàkku dund la ku dund ku liggéeyul di kër kër yi doo mën a taxawee kër ndax dafa def àdduna muy kër ak dund te gis yàlla neex lool mu ne nag su fekkoon ne gis yàlla ci àdduna dafa nekkoon lu mën a ne nit ñi dañuy soxlawoo gis yàlla neexaay ga ba maanaam tëngatul liggéeyati ba mujj nag dee ci xiif yàlla bànni jàkkaarloog jëmmam ja na mu neexee te àdduna nekk kërëg dund li ko noonu tey dañuy nekk ca loola nekk ca loola ba far dootuñ liggéeyati far dootuñ nelawati ba far nag dee far bi ci tegu mu ne yàlla dafa dogal deful ne bët a koy mën a gis dafa dogal ne bët mënu koo gis basiratu moo koy gis ndax basiratu boobu di ko gis ci lay malaaka yi di mën a ñeexee jullit ñi ñu xam ne seen basiratu sell na waaye yàlla bët mënu koo gis imaamu Maalik dañ ko laaje dafa ne doomu aadama ci àdduna dañ koo monteel bët bu jeex mu nekk ci kër buy jeex yàlla nag yore jëmm ju dul jeex àllaaxira nekk kër bu dul jeex su boobaa nag kon bis bu ñu duggee aljana ñu monteel ñu monteel ñu bët bu dul jeex ñu nekk ci kër bu dul jeex ci la ñu door a mën a jàkkaarloo bët bu dul jeex jëmm ju dul jeex moo tax alquran saxal na ne dañ fa gis yàlla yawma idin naadiratun ila rabbiha naadira waxaan fa ne ne li la seen ahsanul husna wa ziyaada ziyaada boobu moo gis yàlla kon àdduna maanaam yàlla basar du ko gis basiratu moo koy gis bi ci tegu juróom-benneel bi mu ne su fekkoon ne dafa nekkoon lu ñuy gis ci àdduna dafay nekk lu ñuy nattale ne temps nii la toll nii la nii la te loolu nag dafa jomb ci yàlla mënta nekk ndax loo gis la mën ko ko nattale maa nga xayma nii la toll nii la mel juróom-ñaareel ba nag kër gii ñu nekk muy àdduna dafa nekk kër ak fiir maanaam kenn ku ne rek ca la nga ne yaa ngi ciy fiire gisoo wujj yaa ngi fiirante doomi soxna yaa ngi fiirante taalibe yaa ngi fiirante ci seen i sëriñ ñooy liggéey tamit ña ngay concurrence di fiirante ci seen i liggéey noonu tamit li konoon tey fekkoon na da nga gis yàlla fii da gis ku taxaw fiire moromam ne ah ndeke man li ma gis di wam koo gis da nga bëggoon yow rek nga gis ko doo bëgg keneen gis ko fiir googa moo jàpp far ba nga far dee bu ñu yeggee àllaaxira nag yëpp dafay dàq kon maanaam yàlla basiratu moo ko gis mais basar du gis moo tax bañ ne arinaa laa jëratan yàlla ne wax ngeen lu rëy de ku wax lu rëy nag ma teg lu rëy teg ci ñoom ak xaacu ci jibril ñoom ñëpp ñu dee mu tofal ca xéewal ya ne waxalal naa keral nañ alaykum ci yéen alxamaama niir wa wa anzalnaa ñi wàccee aleykum ngir yéen almanna mannu wa salwa ak salwa bii dafa niru nàkk ak naar bii niru cokkeer bu ñu wàjj ñu ne ku loo lekk leen min tayyibaati maa ci way tey la nga xam ne razaqnaakum wërsëgal nañ leen ko yéen nag ngeen di ko denc di ci dencal seeni doom ba ma xay ba ma xëy xañ leen ko waaye wa maa xalamunaa tooñu leen ñu walaakin li fi nekk kaanoo nekkoon nañ yartay mën a di seen bopp de man seen tooñ bi mënu maa wàññi dara mënu leen maa tooñ xisa la junj mooy juróom-ñaari li xéewal ga xam nga li yàlla bind yahut mooy juif moo ci gën a ragal seen làmmiñ ñu rëy na waaye ñu ñu ragal la yàlla dafa leen a boole woon ak Muusa ak Haaruna ne dem leen ngeen xeexi ak jabaabira te ya nekk Quds ñi dem yëg ne ñooñu ay ponkal lañ ñu ne Muusa booy xeexi demal nga xeexi yaag sa mag ji wala booy xeexi demal nga xeexi yaag sa borom bi la yónni waaye ñun inaa haahunaa qaa'iduun fadhab anta wa rabbuka fa qaatila inna hahuna qaaidun maa ida ne ko demal nga xeexi yaa sa mag ji wala sa rakk ji waaye ñun fii duñ fi ba départ léegi nag fekk booba yegg nañ ci aw xuru ñu tuddee tiigu xuru wa mu ngi nekk fukki farsaq ak ñaar léegi nag yàlla sadd ki ñoom tàngoor bu tar ak xiif bu jéggi dayo guddi rek lañu ñu ni mën a leer waaye bëccëg bi ñu nekk ci ay kii tàngooru jant ba jàpp leen ñu commencé métti doo métti lool yàlla ne leen dama leen sant ngeen xeex tey ma teg leen ngeen bañ tey ma teg leen mbugal mu gën a métti xeex sadd ci ñoom xiif sadd ci ñoom tàngoor sadd ci ñoom ay jafe-jafe ku ci xëy tamit dox ba ngoon jot fi nga xëyee woon ngay départaate boo xëyee tamit ngoon ba jàpp na ngaa ci nekk fi nga xëyoon ngay nekk benn benn diggante rek lañ nekk maanaam euh, maanaam kii ci euh, gëlëm ci diiram ñeent arbaina sanna yatihuuna fil ard ñeent fukki at yoo xam ne dañuy gëlëm ci suuf léegi nag ci biir nag mbugal mu métti mooma yàlla defal nañ ci ay xéewal ñaari xéewal xéewal nga mooy diiram ñeent fukki at nag amul joxe dépense yàlla wàccee ci ñoom saa yu ñu bëggee lekk rek njanaaw lu ñu ba mu ñoom taxaw seen kanam muy yàq bu ñu lekkee ba pare rek boisson bi taxaw ñu naan waaw diiram ñeent fukki at borom kër yi ko ne leen ñeent fukki at ba joxe dépense yaakaar naa nga sant ñaari fan sax kooko jëlee këram mu sant la ñun nag amul joxe waaye ànd ak loolu tamit amul fay courant ñu ngi am ci leer nekk ci waaye fayu courant dara waaye gëneen xëywal ka tamit yàlla keral leen benn niir wu leen tiim tàngoor wu métti wa wax de dàqu ñu nekk ci ab sedd cli climatiseurs yi di upp te duñ fay dara diiram ñeent fukki at waaye nag teg na leen dugalam sadd leen ñeent fukki at yoo xam ne dañoo gëlëm teqali ko seen njaboot di dox rek di wër ñeent fukki at léegi xéewal boobu di mënoog salwaa ñu ne leen dee leen lekk waaye amul denc ñenn ñi ak baadoolo jàpp leen ñu koy denc duñ ko dencee nag tax xéewal ga moo tax denc tamit baaxul lekk kenn du ko denc bu jotee rek tegal ñëpp lekk ba suur gis nga yàlla ku baax la boo bi mu yëgee ne lekk tey bu fekkoon ne defut ko nam ca def dana bëri ñu koy denc ay fani fan ñi di ko denc ay weer waaye yàlla xam na fu dañu day ni lekk bu xasee ñor nañ ko lekk boo ko lekkut tamit jamono ji lekk ko mooy mu forox ñu sànni bu ko biir lekkul tamit jamono ji ngelaw li ñëw lekk ko mu far waaye bu fekkoon lekk du wut luy forox kon ñu bëree bëri tabaarakàlla nañu gën di denc seen lekk yi dugal ci frigidaire rek jibee fu kenn xam moo tax mu ne waxalal naa keral nañ aleykum ngir yéen alxamaama niir wa wa ansal naa ñi wàccee aleykum ci yéen alman na mann ak salwa kii dafay xaw a mel ni ak lem bu ñuy naan bii mel ni gannaaw lu ñu wàcc moo tax ñenn ñi daan ko firee almanna taranjiina wa salwa ak tayru samaani yi bu yi yëpp wàccee ñu ne kuloo lekk leen min tayyibaati maa ci way teey la nga xam ne razaqnaakum wërsëgal nañ leen ko waaye wa maa xalamuunaa tooñu leen ñu walaakin li fi nekk kaanoo nekkoon nañ li yaxlimuuna di tooñ anfusahum seen bopp ci téye gi ñu téye ñam wa te waxoon leen leen lekk leen ba suur waay bu kenn denc buur bu toll ni yàlla ba mu leen saddee ngëlmëne ci diirab ñeent fukki at yooyu ci aw xuur bu nekk diggante misra ak xutsu nga xam ne fukk la ak ñaar ci ay farsaq ñi àndoon ak yonentu yàlla Muusa pour ñu waroon a dem ngir xeexi ba ñu ñëwee ba ci place boobu rek ñu ne yow Muusa demal yaag sa borom wala demal yaag sa mag ji Haaruna ngeen xeexi waaye ñun de fii lañuy ñuy toog fazhab anta wa rabbuka fa qaatila inna haahuna qaa'iduuna comme ni ma la ko waxee woon ci gannaaw léegi nag Muusa wax wax ñi bañ ci la yàlla nag sa dëngal mën na ci ñoom diiram ñeent fukki at fu ñu xëyee rek dox bu ngoonee foofu lañuy ñuy xemaat foofu la ñu foofu la ñu dooreewaat fu ñu xëyee woon la ñu gontee fa ñu gontee foofu la ñu maanaam xëyeewaat léegi nag ñoom matoon nañ juróom benn téeméeri junne waaye ba ñëwee ba ci diggante boobu rek ñu ne dootuñ jabati ci xur woowu nekk diggante misra tabaarakallaahu ak maanaam xutsu nga xam ne ci Saam la léegi nag ci biir ngëlmane googu di am mbugal yàlla defal na leen ci ñaari xéewal xéewal ga mooy keral na leen ci aw niir wala ni ba yëgatuñ tàngoor te tàngoor mi ngi leen doon xaw a rey njëkk loola ñaareel bi jox na leen xéewal ci ñàkk joxe dépense ñeent fukki at amul góor buy joxe ba yàlla la gàddu gàddu say doom gàddu say sët gàddu say surga yaakaar naa góori ndakaaru yi ko waxoon ne ko bàyyil ma yoreel la kër sa kër gi ñaari fan su ma noon a fekki sax dana fekki waxuma la ñeent fukki xat doo fay courant doo fay ndox doo fay téléphone tabaarakallaahu tamit doo joxe dépense te boroom kër yi ndakaaru yi ak boroom kër yi may déglu ñu bari nekk ci yeneen i réew ñeenti es yi rek moo leen di bëgg ray es bu njëkk bi mooy facture u Senelec facture u Sonatel facture ak saako ceeb ñeenti ñii la ñu daw soo defee ba foo ne ci biir rek ñu ne la bii taxawaat na moo waral sax xukamaa yi dañuy wax ne doomu aadama bu texee te nekk boroom kër bu génnee àdduna la muy njëkk a def bañ dugal ko ci bàmmeelam mooy sant yàlla comme dépense wàcc na ma ngir métti ga ba dem na tey ñu bari lekk ci ceebab jàmbur ci la ñuy gën a xiir ci lekk ci seen ceeb ngir rek bi maanaa naqaru joxe ga ak métit wa ñii nag yàlla gàddu leen ñeent fukki at amul joxe dépense ca biir ngël ma ne googa ca la yonentu yàlla haaruna génn àdduna moo jëkk génn àdduna Muusa am xat di lay xamal yahuud yi ñu bon lañ bu ay ayibal Muusa ne ko yaa ko rey bëgg giñ ko bëgg rek moo tax nga fiire ko ba rey ko Muusa ànd ak ñenn ca ñoom fëgg bàmmeelam ba gannaaw ba ko ñaanee yàlla Haaruna tekki mu laaj ko ndax maa la rey mu ne ko déedéet sama waxtu dee moo jot rek yàlla nag mën na lu ëpp loola ndax yonentu yàlla Aysa daana dekkil aw nit te Muusaa ko gën a ci yàlla léegi nag ci lii lañ nekk boo demee ci si Baalaaji Amut Demba wax na ne maanaam xéewal ga muy dépense ba bu set daana ñëw ba mooy bisab samedi rek la ñëw ak àjjuma waaye ñu ne leen nag bu leen denc dañu dencee rek ci la yàlla nag ak xéewal ga moo tax mu ne tooñu ñu waaye ñoom ñoo tooñ seen bopp ci denc gañ ko doon denc moo waral man tamit ma jàllale bi ko maanaam yëgal xéewal ga moo tax bu la yàlla joxatee xéewal na nga ko séddoo dañuy wax ne wërsëg milliard la yàlla jël def ko ci mbagg jël ay million def ko ci concu def ay junne ci sa ténk soo joxee junne yi rek million ya wàcc nga joxe millions ya rek milliards ya wàcc waaye fekk yaa ngi téye lale lee du mën a ñëw moo tax mu ne wa anzal naa wàccee nañ aleykum ci yéen ca ngël ma dégg alman na man na muy taran jiina wa salwa ak salwa ñu ne ku lekk leen mañ tëyi bâtiment ci way tey la nga xam ne rësëq naa ko wërsëgal nañ leen ko ñoom nag ñu commencé di ko denc xéewal ga dog yàlla ne wamaa zalamuunaa tooñuñu ci denc gañ ko doon denc walaakin li fi nekk kaanoo nekkoon ya mën a di tooñ anfusahum seen bopp wa ba tey fàttalikul bon bon biñ ma fayee bi ma leen defalee xéewal id naa ba ñu waxee ne leen gannaaw bañ génnee ci ngëlmande ga ñu ne leen udxuloo dugg leen haadihi l qaryata bi la dëkk dëkk ba nag dañ ne xudsu la ñii ne ariha mujaahid dafa ne dëkk ba xudsu la ibnu abbas ne dëkk bañ leen duggaloo woon ariixa la lu ci mun di am dëkk ba am na juróom-ñaari buntu ñu dugg duggalee leen woon ci buntu bu mag ba te buñ cay dugg nañuy sujjóot sujjóotab lunku toroxlul yàlla ànd ak di ko ñaan mu sippi leen seeni bàkkaar ñoom ñiy watat seen njëkkeekaay yi yemuñ ca jàllal bi ko tamit di ñaan yàlla mu may leen ay saakoy dugub ak i saakoy ceeb au lieu que xittatun ñu ne xintatun moo nekk ci buxaar yu moo tax ñu ne leen udxulu dugg leen haadihi alqaryata bi la dëkk fa kuloo ngeen lekk minhaa ca dëkk ba minhaa ca xéewali dëkk ba haysu shi'tum fu leen neex raxadan muy aji naatu raxadan muy aji naat xataluñ leen ci dara waaye wa duxuloo na ngeen duggee albaaba buntab dëkk ba su jadan mbir mu ngeen di way sujjóot sujjóotab lunku ñoom nag ñi def safaan ba bañ demee ñiy jëri seen njëkkee kaay yi waqooloo wax leen bu ngeen di dugg ne suñ bëgg-bëgg ak suñu laaj mooy xittatun si peeku bàkkaar suñ bàkkaar yu bëri lañ yàlla lañuy ñaan yàlla sippil ñu ko su ngeen waxee lii def lii naxfir danañu jéggal lakum ñeex leen xataayaakum seeni ñaawteef wasa nasir danañu dollil muxsinina way rafetalee ci ak topp bon tax nag fa baddala watteena la dina ña nga xam ne wala moo tooñ nañ ca ñoom xawlan wax gayra la jur ña nga xam ne xii la waxeef na lahum ñeex leen au lieu que ñu nekk fan xittatun ñu ne xintatun euh, maanaam fi fi fi fi shawaratin léegi nag fa ansal naa wàccee nañ am la si na ci nga xam moo tooñ nañ ñu wàccee ca maanaam azaban maanaam gisan mbugal te mooy peste feebaru peste lañ wàccee ci ñoom ñuy dee rek benn bis dina dee lu mat juróom-ñaar fukki bakkan di dee ndax kat dañoo wuute ndigalal yàlla gannaaw leen defalee xéewal feebaru peste boo xam ne ne samaay mi ngi bàyyi ko ci asamaan bi maa kaanoo ci sababu loo xam ne nekkoon nañ yaf sokku na di ko gën a topp moo waral yàlla sadd ki ñoom feebar looloo waraloon yonent bi daana wax ne ak mooy bu bëree ci kaw suuf ci at mi rek ah, maanaam bokk na ci li leen yàlla bugalee maanaam mu sadd leen feebar boo xam ne duñ ko mën a faj loolu yegg nañ ci jamono jii feebar bu ne mi ngi dal aw nit te li ci ëpp xamuñ li koy faj li ko waral nag kuy lekk loo xam foog nga feebar loo xam parce que dañuy lekk xamuñ ci dara dañuy defar rek ba mu baax mu neex ci bi nga koy lekk waaye xamoo ndax baax naan déet su ko defee nag ñoom tamit moo tax yàlla sax dañu leen feebar ñiy dee rek juróom-ñaar fukki junne nit dee ca aaya bi mu bëgg cee toxal beneen xisa la ci xéewal yi mu leen defal ndax ba ñu nekkee ca biir ngëlmande ga dañoo maroon soxla nañ tamit ndox mu ñu naan ba ñu maree ñu ñëw ci yonent yàlla Muusa li ko waral ñoom dañoo sori yàlla ba bu ñu soxlaa xorom sax ci seen yonent ba la ñuy dem bu ñu soxlaa dugub seen yonent ba la ñuy dem bu ñu soxlaa ceeb seen yonent ba la dem moo bu ñu soxlaa ndox ci seen yonent ba la ñuy dem xeetu Sayyiduna Muhammad jege yàlla jege yàlla bu dee ni lépp ñu soxla dañ koy laaj yàlla saa ñu laaj ko seen yonantu léegi nag moo tax yàlla wax xeetu yonantu bi ne wasalullaha min fadlihi xeetu Moussa wi nag moom lu ñu soxla rek dañuy dem ci Moussa pour mu laajal leen ko parce que ñoom dañoo sori yàlla moo tax tamit gis nga ko euh, xeetu yonantu bi rek la yàlla ne ko yow daal li jëntil seen mbiram àllaaxira na leen jéggalul yàlla seen bàkkaar yi wastaghfir li zanbika walil mu'minin ñi déggee ci na kon nag am nañu njortu rafet na suñu bàkkaar yi comme yonent bi ñu koy jéggalul yàlla yàlla dañu ko jéggal comme nit yi Moussa ña ba ñu soxlaa ndox Moussa lañ ko waxoon yàlla jox leen ndox te yonentoo gën a yell Moussa ci yàlla kon tamit ñun bu ñu xeggee foofa danañu jéggal suñu bàkkaar yi bopp moo tax mu ne wax fàttalikul idis tasqa ba nàndalee dafa gàcc tëgg gi dafa gàcca Moussa Moussa ba sàkkoon nàndal li xaw muy ñeel nitam ñu fekk ña nga faqul naa ñu ne ko idrib na nga dóor bi asaaka sa xet wii nga xam ne fukki xasabu la tolloog sa taxawaay bi na ko dóor alxajara ci doj wi ci doj wi nga xam ne dafa nekk mu rabax nekk lu kaare nekk ñeenti koñ koñ bu ci nekk am ñetti bëti ndox ñetti bët léegi nag mu ne ko jëlal sa xet wi nga xam ne yaa ngi koo jëleewul ci yonantu yàlla Shuayb mu nekk lu ñu doon noo ca aadama ba mu xet si ci yow ak doj wi nga xam ne bala yowóot yi ayibal naan danga amee jàngoroy kanam benn bis ngay sangu rek jël sa yére teg ko ci doj wi doj wan naa wax sa yére yi di daw nga topp ko naan ko saw bi xajaru saw bi yow doj wi sànni ma sama yére yi léegi nag ba yowóot ya xam ne lañ la doon ayibal amut moo a yàlla ne fa barra'ahu llaahu mimmaa qaalu waaye fekk na wa kaana inda llaahi wajiiha moo waral ñett ba ñeent ayibal nañ leen wax leen lu ñaaw yàlla satal leen yonentu yàlla Iisa ayibal nañ ko ne dafa judd ci lu duhut yoon yàlla satalee ko ci làmmiñam ne inni abdullahi ataani alkitaaba wa jaal ni nabiyan wa jaal ni mubaarakan aynamaa kuntu léegi tamit yonentu yàlla Muusa ayibal nañ ko ci ne dafa ame feebar bu kanam ba tax na du nangoo sangu woon ak ñoom ndax ñoom dañoo bonoon bañ bu ñuy sangu ñëpp ay sangoo ndoor kenn ku ne di sa awray moom Moussa nag nangu wutoon loola ñu ne dafa amee ayibu kanam yàlla setal na ko ci fa baraahu laahu mi maa qaalu wa kaana indallahi wajihan yonentu yàlla yuusufa ayibaloon nañ ko yàq ab jaram ci jigéen muy zaliqa yàlla setalee ko ci xale bu ndaw bu nekk ci berceau toll ci nàmp wax ne déedéet amul de moom la alquran ne wa shahida shahidun min ahliha ba tey sayyidatuna Aïcha tuumaaloon nañ ko ak soxot ak ak genn góor gu ñu tuddee Safwaan yàlla wàccee ci suratul nuur fukki aaya ak juróom benn setal ko ne lañ koy ayibal dara amul ci moo tax tamit Moussa mi yàllaa ko setal léegi nag mu ne ko jëlal sa doj woowu nga dóor ci xet wi su boobaa rek fan fajarat dana ball na minu ci moom isnata asara fukk ak ñaar ay nan ci sewnde su boobaa nag xat alima xam na kullu unaasin képp ci nit te mooy famille yi masar boobu seen naan waay de fukki giir ak ñaar ñoo topp kon fukki sewnde ak ñaar bu ko defee ni fukki robinet ak ñaar robinet bu ak maanaam giir ak boppam yàlla da leen kulloo lekk leen wasra boobu ngeen naan mi gis ilaay ci wërsëgu yàlla yi wala taxaw bu leen yàq fil ardi ci suuf mufsidina mbir mu ngeen way jéggi dayoo ci yàq xaalul mu akkat la kon gis nga ko Muusa ngoog xetam waa ngoog et moom la ko yàlla laajoon ne ko maa tilka bi yaminika yaa Muusa qaala hiya asaaya atawakkau alayha wa ahussu bi ala ganami bu ñu demee ba ci suratu Taaha danañ gën a farañ fànce xet waak la ca aju nga xam ne moom la daan ànd ak moo taxawaayam ba ñoo xemoon bokk na ci bagage yi nga xam ne ci aljana la bàyyeekoo ko ni fa jaaroom yonentu yàlla Suleymaan ba bàyyeekoon aljana léegi nag bàyyi na loola ak mbaa dana jàppaan leen ñi taxawati wax Moussa ne ko yow Moussa bët bu set yàpp ak boisson sàppi nañu baadaloo lañ liñ bëgg mooy nga indil ñu naaje ak maanaam comme kombar ak laaj ak xeeti fur wi yooyu ak xeeti ñam yi nga xam ne dañ koy bay ci suuf li ko waraloon nag fa ñu nekkoon moo leen sàppi muy ngël ma négal te la ñuy sàkk amul foofa kon bu ñu leen ko bëggee jox foog ñu génnee leen fa nekk génne leen foofa yóbbu leen fa moo tax mu ne wa fàttalikul id qultum ba ngeen waxee ne ko yaa Muusaa hee yow Muusaa lan nasbira muñ tin mënuñoo sax di muñ ala taamin ci benn xeetu ñam ala taamin ci xeeti ñam waahidin bay benn muy man noog salwaa rek ba du set yàpp ak boisson sàppi nañu ak ndoxu keneen bi ñu balalal ci sa maanaam euh, euh, xeer wi sàppi nañu fa doxo ñaanal lanaa ñeexal ñu rabbaka borom sax yuxruj mu génnee lanaa ñeexal ñu lëf loo xam ne mi maatu mbit loo xam ne dana saxal ko al ardu suuf min baqliha ci la moom pëllëxi suuf la mooy lépp lu ñuy gas maanaam te ne am ren ci biir ñaam bi dugg na pataasa yi ci aju yëpp dugg na wa qisaa'iha ak comme kombar ya mooy lépp luy law te amul peer lu mel ni naajeeg maanaam yomba xaalak yépp dugg na wa foomiha ak i maanaam laajam bëgg nañ tamit nga jox ñu maanaam xeetu ñam muy laaj ndax arab dañuy wax dañuy jël faa di ko remplacer saa ndax dañoo bokk fu ñuy génnee moo tax mën nga wax suum la ñu laaj waaye tamit mën nañ ko wax fuumu kon andil ñu ko wa addasiha ak addasiha wa basaliha ak bi maanaa soblee andil ñu xeetu adas xeet la ci xeeti sëb yi boo demee ci réew yi naar yi danañ la ko wan adas ak basal muy soble yii lañ soxla waaye nag yàpp ak soow rek ak maanaam boisson bee ndoxu keneen bi sàpp nañ baagaloo lañ léegi nag Moussa xéemu xaala Moussa ne leen atastabdiluuna ndax da ngeen di wattee alladi la nga xam ne woo moom addinaa moo gën a suufee addinaa moo gën a xeebu bi la fii ci la nga xam ne woo moom xayrul moo gën a tedd te gën a foor kan lañuy ñuy tegal yàpp ak la ca aju ngay dem di laaj ay yomba comme comparat la sëb beeg yu kenn xam ñu ne ko loolu moo ñu neex li lañ bëgg fekk nag place ba xat ak ñoom rek ngël ma nekk ka yàgg na ñeen fukki ñi bëgg na génn ñi laaj lu fa amut ngir ñu mën leen a génne yóbbu leen fa mu am yàlla ne leen kon nag li ngeen di laaj amut fii kaay leen ma wax leen fi mu am ihbitoo wàcc leen misran dëkk ci dëkk yu mag yi fa inna lakum naka aji nekk la ñaan leen maa saaltum li ngeen fay laaj waaye nag bañ ko defee wa duribat sa def na alayhim ci seen kaw azillatu toroxtaane wal maskanatu ak ñàkk wa baaxoo ñu dellu bi xadabin ci sànj bi laay bu bàyyi koo ci yàlla daalika boo gisee nag sànj gaa li yàlla sant ki seen kaw bi am na andoom isaw bu naka ñoom kaanoon nekkoon nañ yekk furoona di weddi bi ayati laay ci kawteefu yàlla yi wa yaqatulu nañu daan rey nabi yi na yonantu yàlla yi zakariya ak yaxya ñoo leen rey rey nañ lu mat juróom-ñaar fukki yonantu bi xayril xaqi ci lu duhut dëgg ab yonantu sax kenn mënu koo rey ci dëgg waaye loo xam ne duhut dëgg ñoom xam nañ ne sax duhut dëgg zalika loolu nag boo ko gisee bi ma asaw ci sababu seen ak mooy te wakaanoon nekkoon nañ yaataduna daan jalgati li nga xam ne moo leen tagal jëm ci li nga xam ne lu xaraam la daan jalgati tamit jéggi dayoo ci ak mooy kon gis nga ko lii moo doon seen jikko ah, moo waral saa yu la yàlla joxee li gën nga bàyyi ko fa di wuti liñ gën moo xam kim la jox muy li gën sab yonantu la wala yàlla jox la sëriñ bu gën bu baax am wilaaya nga bàyyi ko fa di uti keneen su boobaa am yàppar mu tekkiwu dara mu nobal la la yàllay boole mu jëmee ci tàggat la def boppam tabaarakallaahu muy mbëtt soppi la gunóor di la dundee nga nekk jàng moom ba ngeen xëy yéen ñëpp dem safara moo waral bu la yàlla joxee li gën téye ko bu baax a baax ay boo ko sàgganee rek njëkk taxaw ci sa kanam mooy toroxtaane loo bari la bëri la ku la gis yërëm la ñaareel bi moo tax mun a zillatu ba ci tegu tamit mooy maskanatu mooy ak ak ñàkk parce que da ngay mujj ñàkk torox ba ca gën a metti nag mooy dellu ci sànjam yàlla moo tax lu la yàlla joxati muy lu gënteel bu baax bu moo xam président ab ministre la nga xam ne kii ku baax la téye ko tey wax laa nu tax mu sax waaye boo fa bàyyee ko ne ah ñun daal léegi daal soppi lañ bëgg changement lañu bëgg nangam ak nangam ah soo moytuwul de lu gën a yées rek mooy ñëw te yaakaar naa li may wax ñi may déglu ñu bëri xam nañ ci lu bëree bëri bëri ñun senegal yi dund nañ ko kon bu la yàlla joxatee li gën téyel bu baax a baax boo ko sàgganee rek musiba ñoom tamit rey nañ yonantu yu bëri li ñu rey ci ay yonantu man la juróom-ñaar fukki yonantu ku mel ni yonantu yàlla Zakariya dañ koo rey yaxyaa dañ koo rey kii dañ koo dàqe mu dimba jub garab garab ga ubbee rek mu dugg ci garab gi ñu siisoo garab gi def ko ñaari xat ñoom ñu bon lañ waaye yonentu boo déggati ñu ne dañ koo rey rek yonentu boobu déggaluñ ko xeex waaye bépp yonentu bu yàlla digal xeex yàlla lay xeexle yàlla comme xeex la kenn mënu laa rey moo tax mu wax ci alquran ne inna la nansuru rusulana ñun yàlla ñoo dimbale suñu yonentu bàyyi na aaya booba mi ngi waxaat muy benn kuréel di njaboot ak yàlla gi ci loxo wala zina ña nga xam ne haadoo yahootu nañ wa nasaara ak nasaraan ya muy njaboot ak ñaareel gi xëpp loxo wa saayibiina ak saayibiina yi ñu ne ab kuréel lañ bu xàccee ci diine yahoot ak ci nasaraan dem di jaamu ay biddiw ñeen nga ne nañ neen lañ boo xam ne dañuy woote ne saa bi i mi doomi siisa dañoo nekk ci diineem waaye ku ci ñii man amana ko ci gëm bi laay ci yàlla wala yow muy bis aaxiri bu mujj ba ci jamonoy suñu yonantu bi ku ci gëm yàlla gëm yonantu bi bàyyi ko ci yahood wala ci nasaraan wala ci saabiina yi wa amila mu jëf saalihan farataaki naafila te mooy jëfandikoo sariya ab yonantu yàlla muhammad bi fa lahum ñaan na leen ajruhum seen payoor inda rabbihim fa seen borom wala xawfun leen ragal alayhim di leen war wala hum deen ñoom tamit yaxsanoon nañu yittit ëllëg ci àllaaxira de kon nag ba ma yónnee yonantu yàlla muhammad ku fi bàyyi diine yowoo bàyyi fi nasaraan bàyyi fi yeneen xeeti kuréel yi fi nekk yëpp gëm yàlla gëm yonantu bi di pratiquer charia rek mucc nga waaye loo man di nekk di ko pratiquer tuddee ko diine te duhul diine lislaam yàlla nee na digaluma la ko soo deexee tamit ma la ko fay jénn diine rek ci laa gàddul nga ca nekk payoor muy lislaam inna diina indallaahi lislaam yi ci des yëpp nag nit ñee ci nekk di wax rek bëgg ni rafetal naan beroog lislaam moo chrétien nangam jénn diine fi ne lislaam li ci des yëpp ay pexe la yoo xamee ne nii nga ca nekk ca nekk ca kanam bi ca dund waaye yàlla d'accord ko reconnaître ko tamit jën diin rek moo xam mooy ci kaw suuf mooy lislaam ba yàlla yoon yoroon tukki ba bay àdduna tukki lu waaye tënkooti ay caaxaan la du yàlla yónnee bu yoroon tukki nag diine yahud ak diine nasaraan seen langue ya maa ngi koy wax sax mooy ña tënku ci gannaaw yonentu yàlla Moussa ak yonentu yàlla Isa ñi ñu leen tuddee nasaraan ñu leen tuddee ay yahud voilà baloon la waaye keroog ba yonent bi ñëwee ñu yónni ko rek keroog la yàlla nag dindi décret booba valable tut xam nga bëri na fi ay décret yoo xam ne bi fi Abdou Diouf nekkee valable la mais bi Abdoulaye Wade ñëwee dina ne décret yooyu kon valable tut kon tamit ñooñu valable woon nañ njëkk yonent yàlla di ñëw waaye ba mu ñëwee bay àdduna tukki benn diine valable l'islam rek mu tofal ca tamit waa fàttalikul il axas naa ba ñu jàppee miisaaxakum seen kóllëre pour ngeen war a jëfandikoo tawareet ak la ca nekk wa rafaxnaa ñu yëkkati fawqakum mu tiim leen ak tuurat doj wax dañ leen a indiloon tawreet ñu xool ko ne li ci nekk ci ay ndigleeg tere yépp ñun mënuñ koo bàyyi yàlla hebal malaaka ci malaaka yi rek mu buddi maanaam doj ci doj yi rek tiimale leen ko léegi nag di leen wax ne xusoo jàpp leen maa aatay naakum liñ leen jox bi quwatin ci force bi quwatin ci farlu bi quwatin ci jëfee li ci nekk waskuroo jàngatal leen maa fii li ci nekk laalakum mbastale yéen tattaquuna ngeen teet safara tattaquuna ngeen teet ak mooy yàlla su ma gannaaw si nga tawallaytum dëddu ngeen min ba'di zaalika gannaaw kóllëre gu dëgër googu ma joxoon leen fa lawlaa fadlullaahi bu taxutoon a ngëneel ak yàlla alaykum ci yéen wa rahmatuhu ak yërmandeem ci tuur nangu seen ak tuub ak yéexe seen ak mbugal la kuntum kenn ngeen mujj minal xaasiriina bokk ci ñu xal ku ña de kon gis nga ñoom lu bon lañ ba yàlla joxee tawreet dañ koo bañoon a jël yàlla jigal malaaka bu guddi doj rek tiimale leen ko ni leen jël leen ko ñu sujjóotee benn côté ba léegi sax noonu la ñu sujjóotee jël seen benn bët ba di ko sànni ca kaw di xool doj wa jël benn bët ba mu féetee suuf lu ne jël leen téere bi ngeen di ko jëfandikoo jàngatal li ci nekk lu ci ay ndigle ngeen def ko lu ciy tere tamit ngeen bàyyi ko waaye gis ko mujj nañ sànq nañ ko lépp lu leen ca arrangé ñu bàyyi ko ca lu leen ci arrangé wu tamit ñu soppi yàlla xam lu ko ndax ci lu ci luwa la wàcc kon bu jëlatul nga cay jéem a defaat naan luwa nangam ak nangam yooyu yëpp bu baaxee nit rek la jamono ju nekk dafa ci valable yàlla lu muy wàccee du nekk luy tënk ci yenn jamono jamono ju nekk rek boo ko posé rek mu mel ni jamono jooju rek moo ko tax a wàcc kon nag yow mi nga xam ne jamono jii ngay dund soo ko bëggee soppi yeneen jamono yi ba ñëw ci lu ñuy dund bàyyi ko ca na melo ci yàlla mi nga xam ne moo xam jamono moo xam ñëpp indil jamono allah ya'lamu man xalaqa wa huwa latiful xabir aaya bi taxu ci mi ngi ciy tegal mbugal mu rëy mi leen defoon nga xam ne ñoom la ko mos a def ba ba àdduna sosoo ba léegi te mooy soppi leen ay golo yàlla mos naa soppi nit golo aw nit lañu woon di ay yëwoot yu dëkkoon ci aw xuur wu ñu tuddee ay latu ngi ci diggante misra ak ma madinatul munawara ca tefesu géej ga mët Madina nag la gën a jege soriwul noonu ñoom dañoo këréerëri woon këréerëri baaxul dañoo laajoon ne yàlla kañ la commencé bind àdduna ñu ne dimanche kañ la pare ñu ne àjjuma gannaaw ci subaa gannaaw tàkkusaan ak timis ci la bind maam aadama moom la mujj bind moo tax da koo bind fekk lépp sotti na aadama ba muy ñëw géej pare na suuf pare na asamaan pare na gàncax gee la mu war a ñoo yépp pare na moom nag mu ñëw yàlla wan ko ne li ma doon bind yëpp pare na dama ko bind pour yow nga jariñoo ko moo tax ma jiital ko ci yow kon nag boo xamee sa bopp man yàlla maa la war a tax a jub waaye leneen lu dul yow nag yaa mais nit nag boppam leneen leneen lu dul yàlla tax koo jub man fàtte yàlla waaye nit boo xamee boppam yàlla rek ko war a tax jub moo tax nit a mujj ci li yàlla bind wane ne li ma doon dund lépp nit a tax mooy wal xaatimi li ma sabaq léegi nag ñu ne samedi lu yàlla def ñu ne yàlla liggéeyul samedi bindu dara xëy di tax nag ñu ne yàlla kon dafa jël ñaari tànkam ya teglante ko ci samedi ñun nag ñooy shaabulaahi al muxtaar ndax abu abnaaulaahi wa ahibaa kon ñun dootuñu liggéey ci samedi parce que ñu doomi yàlla yàlla na nattu leen te ñoom ay mool lañu woon bis yëpp jën du am ci diggante dimanche ba àjjuma samedi rek lay jën di am jën yi bëri lool te ñoom ay mool lañu woon bu jën gi bu jën doxul rek ñu ñu torox gis nga yàlla saa yu nammee alal aw da koy tere dara ba pare bëri ko ci ay bëtam ba doo ko mën a doo ko mën a ñàkk jën yu bëri dëkk ba def ñetti xaaj benn xaaj ba ne ñun rëbb wuñ te dañu leen tere képp ku fi rëbb ñooña bañ tere ga ñu gàddaay toxalu dem dëkk feneen bàyyi leen xaaj ba ne ñun dañuy rëbb waaye rëbb mi nag du rëbb pexeel pexeel jën la ndax maanaam bu samedi jotee dañuy gas ay kaaw ci pegg tefes gi jën ya dugg ci ci bisab samedi ko buñ xaaree ba dimanche ñu xaaj ba ne leen bu leen rëbb jën yi ñu ne rëbb ñu dimanche lañ koy door a jël ñu ne leen tey gas tax ba jën dugg ca samedi dootul génn dimanche nga jël ko samedi ko ko rëbboon fexeel jën samedi kay rëbb ko dimanche mooy samedi nga ko rëbb rek beneen xaaj ba ne ñun daal rëbb ñu terewuñu waaye nag ñu nag yéen ay dëkk su ngeen ñu mayee tamit ñu jël waaye du ñu rëbb yàlla nag wàccee aaya ja mbugal leen ñi nga xam ne ñoo doon rëbb seen waxambaane mu soppi leen golo seen baay ak seen yaaya mu soppi leen ay mbaam kuux ànd ak ña nga xam ne ñoo dëkkoon ak ñoom te terewuñ leen ñi nga xam ne nag dañ leen a tere ba mujj jub gàddaayu sori leen ñooña yàlla musal leen ñeneen terewutoon kon noppi yàlla noppi ci seen mbir waaye ñu ne nag la gën a noppi ga mbugal rek la mbugal ma leen ndax fu ñuy defee lu kon nga mën koo tere noppi ca da nga caa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 alladina gaa yi nga xam ne i'tadaw dañoo jalgati woon minkum ci yéen fi sabti ci bisab samedi di bu jën ya te tere woon nañ leen ko léegi nag fa naa ñu wax lahum ñaar leen ne koonoo nekk leen xiradatan di golo xaasi ina yoo xam ne yu sori yërmande yàlla lañ xaasi ina yu sori maanaam bindab nit léegi nag xëy na ñoom ñëpp ñu nekk golo diiram ñetti fan ñi door a dee fa jaxal naa def nañ mbugal mooma naka la muy am xalam ñeexal ñay dund seen gannaaw kenn bañ ko toggooti léegi li maa bay na day xaa ñeexal ña leen féetee kanam wa maa xalfaa ak ña leen gannaaw def nañ ko ma waxee satal muy ak waare liñ mu taqi da ñeel way ragal yàlla ñoo ndax ñoo ko mën a jariñoo man yàlla ma xëy rek ne nekk leen kon yàlla nag lu mu bëgg loola nekk rek loolu nekk rek amaru tasqir la innama innama qawluna li shay'in idha aradnahu an yaqul lahu kun fa an naqul yàlla lu ma namm mu nekk rek su ma ne ko nekkal rek mu nekk waxin la sax ci kaafam mu nekkun waaye bilaa kaafin wala ñu bu koy bëgg rek mu am nag tubaab yi ci lañ demee di ñu ñuul ñi ne ba seetee yax bi njëkk ñu seet ko dafa màcc ci yaxab golo ñu ne kon nit ci ñuul ñi fi jiitu bañ seetee seen yax ya dafa mel ne ci golo la jógee ko moo waral ñu ne nit ñu ñuul ñi ci golo lañ baxee ko loolu la tubaab bi dañu ayibal di ko bind seen livre yi seen doom yi di ko jàng moo tax tey ñay jàng suñuy histoire te ñëwuñu suñuy réew xam lan mooy suñuy jikko xam lan mooy suñuy aada ñooñu ci boppam dañuy xeeb Afrique xeeb nit ñu ñuul ñi ba gis sax nit ku tukki si waaye loolu lépp ay kàcc la nit mos ta nekk golo nit bàyyi ko ci golo golo bàyyi ko ci nit ñii rek la yàlla defal golo te ñetti fan lañ ci am dee ndax dara bu ko yàlla soppee lu wuteeg lam danoon mënta dund lu ëpp ñetti fan bu yàlla jëloon golo def ko nit mënta dund lu ëpp ñetti fan bu yàlla jëlee nit def ko mbaam xuux mënta dund lu ëpp ñetti fan ba war a bañ am ñetti fan rek lañ dee waaye ñoom ñoom ñu wax ne nag ñoom golo yooya ñoo meññ nit ñi loolu wax ju yàqu la ñaara ko yàq su fekkoon ne golo yooya ñoo meññ nit ñi kon léeg-léeg dana gis nit ku salte ñàkk taxawaay ci boppam ba mujj soppeekuwaat golo yi nekkaat ca golo wala léeg ci golo yi golo boo xam ne dafa silwise fonk boppam nga koy sang di ko jox muy lekk ba mu di soppeeku nit waaye ba léegi kenn gisagul gu nekk nit kenn gisagul timi nit ku nekk golo kon day tekki ne ñooñu rek la xoon waaye loolu mos amut kon wax joo xam ne ju yàqu la waaye ñi ñoom yàlla def na leen golo ku xëy rek ngay sànnam soppeeku ponkalam golo rek ñoom nag na ngay xàmmee ñañ soppeekul golo waaye nag ngay sànnam ñañ ñañ soppi golo ñoom xàmmeewuñu leen ñu ne ni añu ah, de teregoon nañ leen ku ñu yëngal seen bopp ya di di di di di fóon seen kii léegi nag euh, ñu nekk ci ñetti fan rek gis nga yàlla jaar naag siif fu ne siif dañoo bon dañoo dañoo bon lu yàlla bind siif ñoo ci gën fekk kenn ci ñoom mi ngi des ci àdduna rek àdduna bi duñ nekk ci jàpp ndax benn siif mën naa tukkal àdduna léegi nag aaya bi tagu ci inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan xissa la bu yéeme muy tamit fu yàlla jaare tarjif rek ci wan leen biddiwu bët ngir seen kon wa id qaala Muusaa li qawmihi wa laa yaamurukum waaw mooy xissa loolu mooy xissa bi xissa bii li ko waral dafa amoon nit ku baax ci banu góor la mu bàyyi nag benn doom bu ndaw ba mu demee bay génn àdduna nag ba mu demee bay génn àdduna mu ne soxna si maa ngi génn àdduna waaye sama doom ji ma am ak yow bàyyil naa ko benn nag bu demee ba nekk mag danga ko jox xaleel bi nag tabaarakallaahu màgg yaayam ne ko sa papa bàyyiloon na la benn nag am ca gott ba demal nga jëli ko mu demee na mu ne na ko woo ci yàllaay Muusa ak Haaruna ak Yaquba ak Yuusufa nag wa ñëw womatu mel ni ku bëgg mu mu war ko la xale bi nag ko topp ndigalal waajuram la nanguwul war nag wa Muhammad nag wa ñëw ba ci yaayam ne ko nag waa ngi nii mu ne ko demal ci marché ba nga jaayi ko waaye nag jaay ko ci ñetti diinaar bu doon léegi da ngay wax ne rek fanweeri maanaam cent cinquante mille waaye nag nanga nga ñëw ci man nga diisu ba mu demee rek ca marché ba benn waaye na ko mën naa koo jënd ci trois cent mille léegi léegi waaye doo dem diisuwaat sa yaay mu ne ko d'accord naa trois cent mille yi mais damay dem diisu sama yaay mu ñëwaat ci demal ne ko mën naa mu ne ko d'accord gis naa ko man six cent mille mais dama ne ko foog ma diisu la mu ne ko demal nga ne ko man neuf cent mille mais nga ñëwaat diisu ba mu ñëwee ko mu ne ko mën naa ci un million deux ci la ko yaay ji ne ko kooka malaaka la li muy ñëw ci yow ngay nit moo tax mu sol mu bëm nit laaj ko ne ko dama am aw nag bu ma doonnoo ci sama baay lan laa ko war a def mu ne ko téyel nag wi yow xale bi baax nga ko man topp sa waajur la ndax sa dund ngi nii da nga koy xaaj ñetti xaaj maanaam guddi gi da nga koy nelaw benn wàll gi benn bi danga nga koy jaamu yàlla benn bi da nga koy liggéeyee sa yaay sa alal tamit da ngay taxani bëccëg bi loo ci am boo ko jaayee genn wàll gi koy dimbalee sa yaay benn bi danga nga ci dimbale sa bopp dundee ko benn bi nga sarax ko miskin yi xale bi loolu la doon def ku baax la moo tax tamit lii ñu bëgg a wax na ko jomb mu ne ko nag kon téyel nag wi banu Israël am na kuñ ci rey sànni nañ ko ci benn quartier ñi ngi ko reyee ñi ngi ko reyee yaraax dem sànni ji ko géejawaay waa géejawaay xëy rek gis maanaam ci wetu kan yoo gis ku ñu rey ñu ne waaw kii nag ñi géngante ko yéen ko rey nangam léegi nag danañ dem ci yonentu yàlla Moussa pour mu war leen a atte li koy war a feeñal nag kara ko mooy sa nag wi ci moo leen di feeñ yow nag bu leen ko jaay lu dul njëg gi mooy nañu fees nag wi lal derba sotti ko wurus ba mu fees tepp ba kenn dootu gis derba loolu mooy njëgu loolu mooy njëgu maanaam nag wax xale ba ca la doxoo gis kon li ciy déggee nekk topp waajur moo gaaw ci woomalal nag doomu aadama ku am sa ngërmandey waajur la sa dara du jafe loolu lool foo jublu rek yàlla defal fa sa waaye nag ku xas ñàkk sa ngërmande waajur koo sàkku ngër ngërmandeem sa sëriñ la sa ku mun di doon kenn mun laa tere torox buñ la bindaloon kaamil jox la bii nga sangoo ko bii nga naan ko tamit dara mun laa tere torox yaa ngi li ñuy jariñoo waaye nag yow waru mënu koo jëriñoo parce que nekkoo fi nga war a nekk te ku nekkul foo war a nekk nag alxuraan du digee ko fa ñu la fekk fi nga war a nekk moom da ngay nekk fi nga war a nekk na mu ñëw léegi nag loolu lay wax si nii waaye da ca kanam da ngay jël ca aaya kanam ne wa if qataltum waa fàttalikul in tum ba ngeen rayee nafsan bakkan fa daaratum ngeen gengante fiihaa ca bakkan ba kenn ku nekk ne yaa ko rey waaye wallaahu yàlla muxrijun aji feeñal la maa kuntum la ngeen nekkoon takktu mën a di ko nëbb de yàlla dina leen xamal ki rey nit ki de léegi nag bañ ca gengantee quartier bu ne di ko di ko di ko geng sa morom famille bu ne di wax ne yaa di ko geng sa morom lañ daw ñoom ñëpp ñi waaxu ñëw ci Muusaa ne ko ñun de dafa am ku ñu rey ci ñun te xamuñ ku ko rey ñi lay ñaan nga dimbale ñu ñaan nañu sa borom waxal ñu kan moo rey ki ñu rey ci ñun moom lay wax si nii ne wax fàttalikul is xaala ba waxee Moussa Moussa li xaw mi ñeen nitam ña di ko laaj na ko dafa am ku ñu rey ci ñun te xamuñ kan moo ko rey Moussa ne leen inna laaha naka yàlla ya amurukum dana digal leen ba tasbahu ngeen rendi baqaratan nag xaaloo nitam ña ne ko atataxisunaa ndax danga ñuy jàppee husuwan ñu nekk ñun yëg ji ñun ñu ngi rey ci ñun bakkan nga bëgg ñoo rey loo xam nag muy ñaari bakkan qaala Muusaa ne a'uuzu danaa muslu billaahi ci yàlla an akuna may bokk minal jaahiliina ca way yëjji ñi de man passé naa maanaam ñay yëjji de sama dëgg dëgg la sama kaf tamit dëgg la ñi xam ne nag Muusaa caaxaan fàcc na léegi li fi sës rek mooy wuti nag dem ray ko xaaloo ñu ñëwaat wax Moussa ne ko kon nag ku doxo ñaanal lanaa ñeexal ñu rabbaka borom sax yu bay nu mu leeral lanaa ñeexal ñu maa hiya ana lan mooy xatu nag wa xatu nag wa moom fukki xat lay xamam ñaar fukki xatam fukki xat ak juróom xaala wax moom Moussa ne inna hoo naka moom yàlla yaqoolu mi ngay wax ne inna haa naka moom baqar ku nag lay doon laa faaribun du nekk nag wu màgget wala bikurum du nekk nag wu nag wu ndawe waaye xawaanun aji digg doomu fafaaloo dem leen ngeen defi maa a li nga xam ne def na digal leen ko dem leen ngeen rey nag ba mu leen waxee dem leen rey nag nag bu ñu rawoon rek doy na waaye ñu nekk fa di compliqué ñëwaat nañ xaaloo ñu ñëwaat ne ko ma ñu ne ko u doxa ñaanal lanaa ñeexal ñu rabbaka borom sax yu béy na mu leeral lanaa ñeexal ñu maa law nuwaa ana lan mooy couleur lu nag wa day ñuulam day xonqam day weexam wala day am couleur bu jaxase xaala wax na moom Moussa ne inna woon naka moom sama borom yaqulu mi ngi wax ne innahaa naka moom baqaratun nag la safraa woo xam ne dafa soon faaqihun bu ñor xomm la ah bu ñor lawnuha melow maanaam soonam ba dafa ñor xomm te suru dana bégal naaw dinañ ñi nga xam ne ñoo koy xool nag woo dafa suur maanaam am couleur boo xam ne benn melo rek la ànd ak soon boo xam ne bu ñor la boo ko xoolee rek nekk ku xam nag dangay ngay kontaan lii leer na xaaloo ñëwaat nañ ne ko udduxo ñaanal a ñeexal ñu rabbaka borom sax yu bay na mu leeral lanaa ñeexal ñu maa hiya ana lan muy liggéeyu nag wa ndax nag wuñ tàggat wulli ko muy bay ci tool yi wala nag woo xam ne dañ koo bayal mu nekk ca gétt gëla ndax inal baqara naka kaytu nag yi tashabaha dafa lënt ngir ak bëri alay naa ki ñun waaye wa inaa naka ñun insha bu soobee laaw yàlla la muhtaduna way gindeeku lañ de yonent bi nee na bu ñu waxutoon wa inna insha allah la na duñ dañ di laaj Moussa Moussa di leen wax ñi koy laaj Moussa di wax ba duñ far ba ñu gëlëm ba duñ far ray ci nag te nag ba mu leen waxee dem leen ngeen ray nag rek inna laa ya'murukum an tadhbahu baqaratan nag bu ñu rayoon rek baax na bu ñu xëyoon tey benn nag bu ndaw sax ray ko baax na waaye compliqué baaxul dafa bëri ci nit ñoo xam ne yàlla moo leen bindee compliqué loo leen wax. dañ fa nekk di la ay détails te am na ci yoo xam ne laajut détail boo jaaree ci ay détails da ngay da gën a jëfee sa bopp moo tax yonent bi ku bañoon nit ku compliqué la ba daana ne leen dugg ci ay détails di ay laaj fekk benn bis dafa toog ne rek yàlla na ci yéen ngeen aji néegam ba benn taxaw ne ko waaw ndax xat mu jot la ko laaj loo ndax xam mu jot lañu war a aji yonent bi noppi ba muy ñetti yoon mu ne ko fu ma xamati yem leen fa bi nga ma ba ma waxee ne aji leen nga ne xat mu jot su ma ne woon waaw rek xat mu jot farata lay doon ci kenn ku ne ngeen xaj du ko bàyyi leen bërig laaj xanaa leen ñi leen ak ñi jiitu woon dara alagut leen woon lu dul bërig laaj bërig laaj day waral bërig waral bërig waral day waral yokkat ak kañuy waral fu ma xamati xam leen fa ñi gën a na compliqué mooy jànkat tubaab yi moom koo ci ko woon kenn sax ne ko man de dama bëggoon a samp fi benn mbaar rek dana fa nekk indil la mètre c'est-à-dire foog nga def ko nii li ko mooy lii moo koy téye moom surtout bu la waxee c'est-à-dire moom foog mu diine da dox ba bëgg a dee ñun te fekk da dara du sotti mu du nit man tabarkàlla léegi nag li ne wa innaa insha allahu la muhtaduna moo waral bu Moussa waxaatee rek ñu xam moo tax mu ne kaala wax ne moom Moussa ne innahu naka moom sama borom yaqulu mi ngi wax ne innaha naka moom baqaratun nag lay doon laa zalul du nag bu ñu tàggat mu nekk unité buy liggéey tu boobu dana jeexi di bay al arda suuf wala tas i duhut buy nàndal di arrosé alxarsa mbay mi moom kay musallamatun lu ñu musal la ci xeeti ayib yi ak ci xeeti liggéey yépp du ko def moom la chete di benn melo di ke nekk euh, la chete di benn melo fii haa nekk ca nag wa lu dul meloom wa benn melo rek la yore muy melo zone xaaloo na ngi doon ko wax ne ko al aana léegi nag jiita andi ka bil xaq ci dëgg léegi nag li ñu wax leer na naññi dem nañu ko ci nag wa bañ ko amee nag fa zabahuha reen nañ ko waaye wa maa kaadoo xawuñ woon yëf alu na di ko reen ni ngir seeraayu nag wax dafa seer